rajo Futur Media mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu na ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xalaas mu di suñu journal fait divers inspecteur Ndoye Bane maa ngi lay nuyu am mbégte di ànd ak yow ci xalaas. waa daal. billahi ah, kon baax na maa ngi lay ziar di ziar passe partout di ziar auditeurs yëpp mu ngi leen di ñaanal jàmm di ko te di ko sàkk ci ñoom yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci xel yi xol yi def ko partout maa ngi koy dindi. kon baax na Passepartout maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Ndiaye nuyu inspecteur di nuy auditeurs yeeg internet yëpp di ziar ñëpp. Mm-hmm. ci suba nuyu partenaires yi ñuy gunge ci xalaas Optique Vision Plus Sénégal. ñew euh, ngir noppal Sénégal ay lunettes vision de près 15000 vision de loin 15 000, et progressif avec anti-reflet 35 000. Et ay originale, originales en traitement X bleu loolu vision plus Sénégal ay monture de marque optique vision plus Sénégal ci rentrée scolaire bi dafa ñew andil xalé yi nga ji euh, am ordonnance lunettes lunettes fa démé dinañ am réduction bu am solo ci ordonnance bi optique vision plus Sénégal Dakar 33 821 54 57. Optique Vision Plus Sénégal Mbour 33 876 61 03 Optique Vision Plus Sénégal Kermbaïfal 33 864 79 84 Optique Vision Plus Sénégal Touba 77 090 97 27 comptoir commercial de plomberie du Sénégal du CCPS di leen spécialiste sanitaire Fiji Sénégal plomberie ak euh, tuyauterie CCPS rue Valmi angle Djuf, Diouf CCPS rue Tolbiac angle Federbe comptoir commercial de plomberie du Sénégal 77 517 98 29 77 401 55 69 CPEX, société industrielle papeterie express du Sénégal yi indi espoir des partenaire ci xalaas espoir DK Yigan yi papier bi gën la ko défaré amul daraay toxique mu noppal parents yi amna couverture cartonné amna couverture euh, plastique kay Espoir distributeur exclusif yi LPM boo dem euh, ci distributeur exclusif yi la bokk muy LPM bi nekk Bourguiba bi nekk Sandaga bi nekk Colobane bi nekk Tilène bi nekk Kër Massar LPM mooy librairie papeterie Mohamed mhm. GBS ba Mbour bi ca Mbour ak ba nekk Kaolack mais également Hello Partenaire nekk immeuble la Forum D'Akarlo ak université Cheikh Anta Diop de Dakar mhm. lépp lu ngeen soxla ci fourniture scolaire matériel bureautique ak euh, informatique am fa 77 633 21 24 77 633 21 24 wala 77 571 07 20 22. bi ci Bourguiba moi waaw waaw euh, mooy LPM Bourguiba. Ah. librairie papeterie Mohamed Bourguiba. Ah, actionnaire laa foofu ah bon waaw kon yéen ci distributeur exclusif yu kay espoir yi ngeen bokk. c'est ça. Quand Barna. Voilà, gont. nouveau fromage de l'écran est à votre disposition fromage boubestar, bees tàq di l'écran moo ñu andil fromage bohamne. Euh, bourré de calcium, am vitamine A pour la croissance des enfants, mais également vitamine D, compagnon idéal des petits et des grands, mais aussi des papis et des mamies. le fromage l'écran, goût unique. pas trop salé saveur euh, inégalable saveur de lait inégalable rentrée scolaire lii di lekk rencontre dafa ñëw ngir ànd ci ak yéen boutique boo dem grande surface boo dem bu la neexee laajteel euh, fromage euh, l'écran hmm. ay ca ñu doxal ñu doxal bismillah ba mu dox waaw jaajëf mais daa internat ba ca Castor pare tuñ ko ci de. waaye da ngeen di wax turu internat bi ni ñu noppal parce que ñun dañoo sonn. yaay na yaay ah, nga boo yaay internat bu nekk dakaar fii am internat yoo xam ne ji réputation bu baax la ñu am. effectivement. Euh, di liggéey li ñuy liggéey nit ñi wóor leen di leen dénk seeni doom. Mhm. imagine toi man ma nekkoon bitim réew. Mhm. dégg ñu naan am na internat bu nekk Dakar xam. Mhm. sama fit du toog da ngeen ah. wax turu internat. mais am na internat yu xumb na Njaay. am na internat yoo xam ne Njaay mm. barke Rasulaay la fay xew la fay xew moo xam bu bi jàngale lee la moo xam internat daal laa wax mais am na yoo xam ne ya fay xew da dañ gars yi dañ koy nëpp nëppal fii ci dëkk bi de tànk nag loolu jógewu fi ah hmm. baax na duñ jug ci di am mbetteel baax na hmm. réew mi il faut que ñuy bàyyi nëpp d'accord naa ñuy dox ci sutura hmm. sutura moom lu mu jeex njaay baaxul mais am na ci loo xamante ne jii nag moom dees koy wax nit ñi xam njaay kii doomam maire bi da doon togg internat ba fa xale yay jànge mhm. ak fa xale yay fanaan ak fi maire bi doon togge du benn mhm. maanaam fa maire bi fanaan ak fi xale yi nekk du benn maire bi ci ay waxam nee na ñoom amuñ sax akse ci xale yi mhm. maire bi gis am doom bu jigéen bu am quatorze mu koy indaale liggéey ba sonn ci mois ci weeru koor gi mu démissionné bàyyi ndax liggéey bi dafa metti woon ci lim ñu wax dem toog xëy suba jékki-jékki woo ko ni ko indaale sa doom bu ndaw bi mu indaale doom ju ndaw ji ñu enquête ko ni ko da nga doon da ngaa violé sa beneen moroomum jigéen mm-hmm. moom bokkul ci daara ji xam nga lu ma neex ci say wax waaw mm-hmm. da nga tout le temps danga naan ci ay waxam waaw ci mm-hmm. ay waxam xam nga moom li mu wax bi ñu ko déggee démb waaw ñëpp dañu ne waaw tooñ nañ ko waaw mais li ma xaw a jaaxal mooy waaw maire bi amul benn xaar ma bu amul benn xaarma yàlla ak waa internat bi waaw lan mo wara parce que xam police au Sénégal aussi woyoful woyof gu toll mhm. fekk ans 15 ans. Mhm. ko accusé ko viol. Mhm. Euh, dougal ko euh, ci kasso bi. di voilà donc ba kérok di prenons l'info avec des pincettes. c'est ça. avec des hmm? pincettes. voilà voilà légui xalé bi ba tribunal de. xamna parquet parquet lañu retour de parquet lañ koy def ba ñu ko bi. Hmm. Hmm. internat soo ko tàppee léegi ci sa yu ci Google bi. moo tax man leen ñi koy déglu nañ ko tàppee ci Google bi ñu xool. man du man moom kii mais ñoom jéem nañoo jokkook ñoom depuis une semaine ñi ngi jéem a jokkoo ñoom. benn yoon lañ jot maire bi maire bi ni day nelaw. ñi ngi koy waxaat fii. Mm-hmm. ni ko su fekkee mën naa jokkoo ñun indi ay leeral ci lii. Mm-hmm. njaay dégluwaatal maire bi. Ah, mais d'accord mais baax li mu waxaat tey ah. foofa sax bu leen ci sonn comme yéen woo nga leen jotoo leen. waaw mm-hmm. wolof ne pël bu bañam soow nangoom sabet boppam la ko def. voilà kon nañ déglu. li ma gën a metti ci ci affaire bi mooy sama doom ji ñu teg tuuma bi ki ko ko def dan maa néewal doole ki nga xam ne moo dikk kalaame sama doom mu ne dañoo violé doomam ba mu ba mu ba mu ñëwee ca ba ba mu ñëwee ci police ba maa ngi moom jour ba may jikkee wuy si jour boobu laa ko mës a teg bët ànd ak doomam li ma ci gën a metti nag mooy néewal doole gën ma néewal doole xam ne awma doole ñu jël sama doom ji teg ko ci kaso bi maire bi nag daaraam ji ña ca daara ja ci boppam muy tataayo fa nekkoon ñëpp ku ne xam na la ma fa nekkee woon ak sama doom te ñoom ñëpp xam na li la nekk ca daara ji maire bi xam na li nekk ci daaraam boobu li tax nag nangu ñee wax ku ci nekk ñu bi nanguwul wax boo ko woowee téléphone sax du jël téléphonam parce que xam na li ne ci daaraam bi man nag may ñaan dimbal justice su Sénégal sama doom bi ñu jël tuuma bi teg ko ci ndodam bi muy xale 14 ans aara yaay Nafisatu la tudd mais internat la kastoor la nekk ci marché bi man nag may sàqu ndimbal ndax néew naa doole néew doole gi mooy fa seen loxo egg sama loxo eggu fa am na lu ko naqari ba ci kanam ya xale la de waaye aka am lu ko naqari Dakar man nekk biir dakaar sonn fa sonn fa paas doxo doxo dox jooy ba feebar fa sama mbokk yëpp jóg lu ne ñu def bi ñu demee tribunal jour crédit ñu nit ñi retour parquet yóbbu ko fële euh, commissariat bu bu rëbës ñu ñu ni dañ ko faa dénkaane retour parquet may jaabante guddeeg bëccëg di jënd ay lekk di jaabante bu bëccëg waa mbedd mi sax dan maa xàmmee woon fu ma romb ñu may defal sa doom ji ñu teg tuuma bii te ñu xam ne lii ñu def teguñu ko fenn muñal lëkkaloo naa ba jël avocat bu cent cinquante mille xam naa avocat ba nag la ma ko fay moo moo ndaw ndax dafa maa yërëm téeméeri junni la ma wax yu ñu demee ñoom it bën tàppee kayit yi ñu xool ñu wooma indi xale bi sama kanam fekk ma xool ma jooy ma ne ko bul jooy ba muntuma tey sama ñun ma boo jooyee dañuy fëng sa doom moo def li muy def taxal sa fit nga wax ak ñoom maa ngi toog bi ma toogee laa gis mu am ku mu woo nga waaw xale bi ñëw na xaw ma yaay xaw ma di jaay xale bi la ñee la waaye ci la ko woo làkk ko français ni ko waaw xale bi ñëw na ci laa toog di leen déglu rek ñu laaj ma sama daante laaj ma foo dëkk laaj ma yëpp ma wax leen ko ñu daan ni ma ñu laaj xale bi ni ko yow siggi xool ko yow ñeene liñ lay wax yow yaa ko defal xale bi ni leen man defuma loolu xaw ma ko li ngeen may teg xaw ko ñu daani ne waaw baax na tappe ne ci ordinateur bi tappe seen kayit ba mu egg daal di woo policier bu jigéen bi ni ko ñëwal nga jël ko dañ koy defee ci lañ ko yob feulé police jigéen ñi campenal mané ah mané ko soxna si teng malak lak waye dégluwul ma non lañ wiir jël sama doom yob ko bob ba tay ji nak ba teguma sama dom, buk ba aj vendredi bi ni lay sago tek sama dom bi bët boo ko gisee mu nga joy bu bët yi lima gëna jaaxal xalé bi ñu wax ni sama doom moko def li bi ni sama doom da ko violé mu jigéen Euh, ci suba ga ban arrêté sama doom ba ca suba ga la yaayam jël vol dem bitim réew ñu ni ma laajte ñun ma dem na ak xale bi léegi man Sénégal may laajte Sénégal ndax ni fi doole moom metti na fi de metti na fi ndax boo ñëwee doole Sénégal di nga sonn parce que man fu war dugg rek dugg naa fa léegi nag may laajte ndax justice Sénégal Sénégal moom boo fi néewee doole moom c'est sa aajo du faj wala bu la tooñee dañuy dalaat sa kaw weñaar sa loxo loolu laay laaj parce que ban arrêté sama doom ba ci suba ga la yaay jël vol ànd ak doomam dem yoonam ma waa man ko kon sama doom bu ne dañ ko yóbbu tribunal kan lay taxawal très bonne question ab laaj la néew doole ci réew mi am ak tooñ ak tooñ la de man day euh, néew doole suma suma suma amoon dogal ci réew mi bu hmm. ma fi am hmm. wala muy jël xale di ko dugal kaso dinaa ko seetaat hmm. yéeme na de. Ndiaye. parce que xam nga. dafa uh-huh. am taxaw seetlu. ndaw si mois de mois d' avril. Mm-hmm. la bàyyi. Mm-hmm. mois d' avril. ba août ñu koy soog a woo jël doomam. Mm-hmm. dafa am lu ñuy wax les faits en fait. les faits mu toog nañu trois mois après bi mu bàyyiwee. c' est vrai que police ku mu soxla contact am ko mais en fait fan lañ jëlee numéro ndaw si ba woo ko question la internat bi Ndiaye depuis 2010 xëy na boobu réseaux sociaux melul nii. 2010. Hmm. tuumaal nañ leen fi loolu ci ñaar jàngalekat. Hmm. tuumaal nañ ko fa ab chauffeur donc li yàgg na fa. Hmm. te su te soo duggee ci internet bi da nga koy gis. comme yaa ngi waxi taxaw seetlu. waaw numéro ndaw si moom mënul ump waa police. pour plusieurs raison mais bi ci gën a yomb sax mooy bul fàtte ndaw si fa la doon liggéey. waaw tey boo demee porter plainte. dana dem ci internat ba. am ñu ci déglu. jël ay contact recoupé. donc kon numéro ndaw si moom. dana yomb police. mais ci biir wax ji dafa am ñaar yu ma ci jaaxal benn mooy ni ngeen ne xale bi 15 ans la am. Mhm. majeuragul. matu ko sax. Ah, léegi lu muy def campagne. ah loolu laa lay laaj demal nii wala boog parce que man prison pour mineur bi ma xam ci Sénégal. Mhm. wala yi ma xam ci Sénégal fii ci mhm. Dakar. Forbe la Forbe waaw. Ah. mais comme suñu xam-xam yaatu te bëgguñoo réeral nit ñi. dañu bàyyi noonu waaye su ma amoon man dinaa yéex a tëj xale de. waaw loolu. parce que teel a ñamal xale kaso.

dëkk bi soo fi néewee doole bayul nga jël say say bagage ak yooyu dem butt armeel ya nga toog fa. néew doole bàkkaar wala bul génn parce que lii dafa doy waar. lu doy waar la beneen bi mooy euh, dégg nga ndaw si ci waxam démb léegi mi ngi naan waa internat ba xam nañ la xew ci seen internat li mu ko wax dafa bari. xaw ma nag lu fa xew waaye mi ngi koy interpellé waaye su duggee ci internet bi daal. nga tàppe turu internat boobu. ngir liir man bi ma ko tàppee liir man damaa tiit mais nag. na ñuy na ñuy bàyyi xel néew doole yi njaay de. te te te te baan aussi. ñu doxal njaay démb am na ci ay témoignages bëri de. waaw nga xam bokkul ak internat sax mais ñoo xam ne ci ay internat lañ jaar wax ay fee yu ñu fay. yu ñu tamit ndaw sii. Hmm. génn këram defe naa jigéen ñi wérul la. Hmm. jël taxi. Hmm. dem dugg ci be dem ci benn banque am lu mu récupérer xaalis. di ñibbi goroom xaw ma yaayam woo ko ni ko foo nekk. mu nu ko dama <laughs> demoon ci banque bi récupérer ji xaalis taximan ba pompe ko mu nelaw. naturellement mu récupéré xaalis ba déposé ko cité des eaux. Ah, déglu ko. waaw man de dama demoon CMS tey CMS bu Grand Yoff doon de ma def retrait ba ba pare jël benn taxi nag mu woo ma yóbbu zone de ma jëlee taxi bi may wax téléphone bi may wax téléphone ci euh, ma doon waxal dama laaj foo nekk yooyu ma ne ko dama demoon. bank jële ji benn xaalis mais maa ngi nii rek ñu bi affaire yooyu bi may wax ak kooku bay coupé ci la borom taxi bi di def benn pompe mu naan ko sëñ bi sa pompe bi mu may dérangé mu ne ma baal ma de dafa am ku yeboon jën sama oto moo tax ma doon def pompe bi dama fa woon dalay dérangé mu ne ko déedéet man sentiru ma sax jën bi après ñu bàyyi noonu bi ma waxee moom loolu daal ci laa gëj a xam fan laa nekk ak ci laa gëj a wax nit loolu diggante ay onze heures midi la woon mu ole mu yóbbu ma zone de captage mu yóbbu ma cité des eaux biir cité des eaux am na benn koñ mu nekk foofu fu ñuy cuube xaw na sore nag tuuti fi ma nekkoon parce que fi ñuy cuube da ngay seen benn taatu guy ci taatu guy ga daal la ma bàyyi parce que bi ma ko ci taaru guy gi laa nekkoon xam naa daf ma faa bàyyi may ne la wala dara parce que daf ma faa bàyyi ci këyit bi ma la ma soon xaalis bi tagal ma sama téléphone sama kaw saak bàyyi ma fa daal di dem benn meer sax nu mu ma naan romb naa la fi ñaari yoon mais xam dama naan xam naa kii daa dox ba sonn ñu ñëw toog fii mais après sama rakk bi moom moo woo di ma laaj ndax dangay añ sa yooyu ma ne ko man ko man damaa xamul fan laa nekk nii mu ne ma loo wax nii ma ne ma expliqué ko mu ne ma léegi xoolal kenn ku la jege rek nga paas ma ko téléphone ma wax moom ki ma njëkk woo sax xam naa dafa yaakaar que ne damaa wérul wala dara muy jéem a kii dafa wax man dafa wax ak man rapidement rek avancé dem après ci laa jéem a approché keneen jox ko téléphone bi mu wax sama rakk bi mu ne ko ne man fi ma nekk soriwul ak zone de captage. maa ngi cité des eaux mais ci biir koñ bi la yàlla xam nañ bi ma dëkkee fii ba tey mosuma dugg ci koñ boobu c'est la première fois ma dugg fa te xaw ma tamit nan la ma fa wàccewee moo tax xaw ma woon yoon bi may def nu may def ba génn foofu yooyu sama rakk bi moom mujjee waxante kooku téléphone ba jël si ma fi ma nekk daan ma yóbbu xaalis bi nag xaw naa takku xaw naa takku sama carte d'identité tamit mi ngi woon ci biir bi ma la ma sonn ak xaalis bi parce ma ko jël rek dem ko dugal si biir bi. mi ngi noonu. ñaari affaire nga ciy jàngat. que ni taximaan yi dafa am ay taximaan. ak ñuy raas dem. Hmm. am na ay vrai taximaan yoo xam ne ñuy xëy liggéey comme Ndiaye ni muy xëyee dem RFM liggéey. voilà c'est des taximan mais am mm-hmm. ñoo xam ne dañ leen a rax yu mel ni la ñuy def beneen bi mooy nit ñi nañu moytu di dugg ci taxi di wax yenn yi. ci oto surtout oto yëpp. oto yëpp sax. yëpp mais dañuy dugg ci taxi di ratatati di ratatati mais soo nekkee ay bande dañ la koy def. Mm-hmm. soo nekkee ci taxi da ngay xool ni ngay wax soo ko la bëgg a dugal ci yenn gaam yi nga ne ko euh, ba ci kanam maa ngi lay rappeler ba ci kanam. ñetteel bi mooy moom mii. waaw def na lu rafet. ndax lii ko dal nii. Mhm. mënoon na koo toogaale. waaw parce que xam na ne ñëw ci rajo bi wax doo tax taxi bi. du tax ñëw déedéet mhm. mais ñu bari dinañ ci jànge mhm. baan képp koo xam ne yor nga som bu xaw a consistante. maanaam mu dëgër as lëf. ngay jël taxi. fexeel ba am ay preuve ci taxi beeg taximan bi. doonte da nga koy jël ay vidéo ay kii envoyé koy nit. licence ba licence ba nga xaalis du ay caaxaan. yaa ngi dégg. am na leneen lu dangereux lu ñuy def léeg-léeg dangay dem ci benn kii di yónnee wala ngay retirer xaalis. Mhm. yoras tuut. Mhm. ñu la jox ma numéro bi. Mhm. nga di ko wax ci kaw. yàlla ba ki ngay ki nga koy jox nag yàlla bu vitre dox seen diggante. ñi nga ñi la wër ñépp dañuy dégg. ngay joxe numéro bi mu naan la waaw waaw. waaw ña toog yëpp am nañ sa numéro. waa bu dee numéro Ndoye Bane nga xam ne ku ne woon na ko. man sama numéro yow kay jox ko këyit rek mu lan. man sama numéro siiw na ni marché Castor. 638 bi nag. wante 638 fu ma jël 638. <laughs> yow 636 bi nag yow sa 636 bi nag yor nga 636 bu kenn xawul man 638 <laughs> bi moto moto ko moom de moom moom <laughs> numéro moto la Ndiaye gis nga kii xale bi ah. gis nga xale bi il est il est il est beau il est beau macha allah voilà il est beau macha allah mm-hmm. lii laa la du extrait de naissance lii nii lii waaw waaw kii dooy turu papaam effectivement turu yaayam. Mhm. xanaa kon baay bi nangu woon na. Mhm. ah nangu a. waaw dafa dem nag daa dem ba ci biir ni ndaw si man daal affaire bi du luus ne nañ dem def defi test ADN. Oh. nee na ndaw si nee na ñu ànd dem defi test ADN. test ADN ba génn ñu ni ko juróo xale bi. négatif négatif du woon jabaram de doon doon génn ñoom ñaar. Mhm. waa ji école des arts la xaw la doon liggéeyee. Hmm. ndaw saa nga ndar. Hmm. ndaw si ndar la nekk. te xale bi xam nga mag la léegi. aw oh. comprendre nga. ndawaa ji ci ay information moo jot ci ay information moo jot dem na ba accepté ni moo jur doom ji ba joxe carte d'identité carte d'identité waajaa ngi nii bañ déclaré xale beek yëpp. Mm-hmm. ndaw si ñu xëy suba mu woo ko ni ko damaa bëgg ñu dem def test ADN ndaw si ni ko foo ma woo ma ñëw. ñu dem fa ñuy defee sa adden ba. Mhm. ndaw si daal nee na benn eh, eh, étranger xaw ma ñu ni boo ñu jéggal ma ci kàddu gi ñuy woowee ñàkk. ñoo mhm. ko jël ni ko dangay def sa ADN ni defar ko test tes bi génn wane ni waa ji jur ko ndaw si nag nee na dafa néew doole moom tam day sàkku ndimbal ñu dimbali ko jàppale ko mu àndaat ak waa ji. amul ay moyens yi mu defee tes ànd te waa ji bu def na def contre expertise. voilà nee na loolu la bëgg def yaangi ngi dégg léegi may wax ak waa ji téléphone. waaw waa ji ñàkk sax ah. voilà waa pour jël version am. ni ko léegi lii man xaw la wax dëgg yàlla. xaw ma ndaw si. Mhm. dama bëgg rek ñu di joxe informé juste et vrai ndaw si tamit sénégalaise la. Mhm. dem na rajo bi la am yaakaar léegi ñu doon jël sa version mu ne ma moom amul lu muy wax moom daal dem na def test test ADN test ADN woon ne ko ne ko juróom doom ji amul amutul lu mu ci nga ne ko ndax du tay bu ñaanon ngeen ànd defat benen test di ko nangu di ko nangu mu ni moom yeggaguñ foofu yeggaguñ donc suba élément bobu leen lay indi non sañoo lolu tay de xolal sañoo damay indi élément bi indi photo waa indi photo xalé bi. mu duggal ko ci ah, instant déedéet do ko duggal fenn dama la koy. déedéet de do ko duggal man eh, damay waaj dem conseil bu ma dugal. Yacine conseil. voilà ñay may tàggoo damay waaj dem conseil altine non altine moom avant de lay dem conseil inshallah le premier novembre lay dem congé ma koy xamal auditeurs yi damay dem congé pour di wàcc sur le terrain pour faire face waaw pour faire jàpp ci politicien mooy jàpp ci conc kuy da nga jàpp ci man voilà xamoon naa ne non non élection la il faut ma dem mairie Thiès wut ma mairie Maristes jàppal ci man sax génn naa ci coalition